jouer ce combat là deux styles la ñaari styles yu bokkul la. dinañ xeex dinañ bëre comme euh, tey. dinañ xeex dinañ bëre mais le plus lucide ak ki gën a am li ma lay li ma doon wax erreur bi amaa def attaque bi na précis. Mhm. boo demee rek na jeex. cong bi benn lay doon mais bu fekkee day doon benn non boo dalee si waay ji rek làmb ji dafa war a jeex mais gaar nag ak ki nga xamante ne dafa ñëw pour correction. parce que Adja mbër boo fi gis ci boxe wala dara dañ koy xool ci combat keroog Tyson Fury ak nganu bi. Mhm. correction bi mu bëggoon indi waa ji moom mujj tourné ci kawam. te sport de combat noonu la mel soo ñëwee da ngay corriger nit ki wala dara toujours sax yàlla daf koy dimbali day mel da koy may beneen force. donc bu ñëwee da ngay humilier Tapha Tine ñëpp xam nañ ne c'est un fin bagarreur mbapatkat la bërekat la Eumeu Sène ñeme na ay jël coup fi mu demee ba nga gis ne gaynde gu gaañu affaiblir foo lay gën a amee beneen ak arrangé. Euh, force am yi mu gën a ñëw ci moom mu mën a am beneen bëre bu mu la indil donc c'est un combat bu bari calcul. combat buy gaaw la. je ne pense pas non. gisuma mu nekk combat éclair combat bu bari calcul la te dina am round d'observation. ñoom ñaar waaw. forcément à la kulial Tapha Tine day wàcc tolloog moom. est-ce que am na xaar. dina am mais du yàgg mais il faut que am round d'observation. parce que koo xam ne boo ñëwee mu arrêté la ak coup. Ah. il faut nga calculer wu. parce que Tapha Tine kuwam du caaxaan. et puis et puis Eumeu sort d'un chaos. day day day ciy bàyyi ci maay day ci bàyyi xel donc du mën du mën a ñëw à l'aveugle. à l'aveugle donc dina dina dina dina. et surtout moom il n'a plus rien à prouver ci làmb pour defaat les mêmes erreurs. day taxaw xool day taxaw xool bëri lay gën a indi xeex ubbi buntu la. absolument bu boo rappelé ko tour bëgg jóg daw defe ne gagné na. Mhm. mu delloo ko. teg loxo ci panneau bi bi ci panneau bi <laughs> def appel troisième pied boobu ma lay wax. Ah, alors loolu moo ko dimbali. Euh, Penda très rapidement.